gars yi nuyu naa leen ziar naa leen jox naa leen seen wàccuwaay yéen patriotes yi nag damaa xamul man lan moo tax dugalut information ba la ngeen a wax ñenn ñi mut jëng mii ngeen naan sëñ bi Mbàkke yéen a ngi tooñ kullu sant Mbàkke kii jigéwut a sant Mbàkke du ciw sant du ciw melokaan du ciw doxin du ci waxin du ci jëf waaw jigéwut a sant Mbàkke mu jeng la tudd mu jeng ku ës la ku sikk te mën a fen yooyu yëpp la boole ës na jubadi na mën naa fen mu jeng mii ba tax na ku xamul mu jeng mii dégg nga ko arrière am yëpp xoolee ko jamonoy wax Wade ba ci euh, Macky Sall mii comme mu mënta santaas rek attaqué lam waaye ñëwal dun na la sonn nañ dun na la may ñu naan duna la may ñu lekk tey saa yoo génnee ci pénc mi loo wax ci nit rek den la wax lu waraw ceew waaw yéen ñi naan say taalibe barke seexul xadim bàyyam amutub taalibe ba muy amut taalibe amut taalibe moom mu jëng amut taalibe beneen bi ci des gis naa jootukat bi nee daa bëgg a naan comme que jubóo naa mag yeeg nangam nangam yow jootoo sa liggéey demal ci ñay ñu jootal la nga jubóo la ñay jootale ñun suñ parti bii duñ jootalante muy tas déedéet yow ña la jootaloon dañoo perte nguur kon ñun jootalante wun dañoo juutalante wut